asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 9 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi yëgle asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 11 octobre 2019 ñëw ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey sunu lamb fa la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi nag tey dafa xëy ñëw wan ñu ki nga xam ne nii mooy le roi des arènes Modou Xarañ Lo ak ki nga xam ne mooy sëll bu ndaw bu Pikine di Ama Baldé ñaari mbër ya nag ku ci ne yaa nga wane sa bopp maanaam daal na ca seen tous concentré bu baax a baax a baax yëglekaay bii di suñu lamb nag ne lay leer ba leer day daa mel ni nag ah daje bii nga xam ne day moo daje roi des arènes bi bi ndax du am ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ndax nag daa mel ni fi nekk nii mbir yi mu ngay gën a leer ginnaaw ba af ba kii nga xam ne moo di Ama Baldé tëflee ca la nga xam ne nii day moom lañ ko doon proposé muy tafaatin daa mel ni digganteem ak Modou Lo moom léegi daal mu mel ni luy war a taxaw la wala lees bëgg mu taxaw la mu mel ni ki nag biram ñi ngi ma nga xam ne nag moom moo yor ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo moom Birame daal la mu xam ne day nee na fi mu nekk nii day mu ngi leen di proposer ay proposition yoo xam ne daal yu concret la yoo xam ne yéen sa mën a dégg la ci seen diggante kii nga xam ne moo di Ama Baldé mu mel ni ki daal kon lay xeeñ boo bëggee dégg dëgg mooy diggante Ama Baldé ak kii nga xam ne moo di Modou Lo waaye li leer ba leer daal diggante am ak Tafa moom bu doon xeeñ itam daa mel ni fi mu nekk nii day mu ngay bëgg a sàlli ndax nag Leewtoo point net ñu ngi fa jàngate kii nga xam ne moo di Abdou Bakhoum di mënaat sawu Ama Baldé Abdou Bakhoum daal la mu wax leer leer na nee na li leer ba leer daal mbirum la mu la nga xam ne nii daal moom moo nekk dafa am lu ca wute nee na loola bokk na ci li tax ba Ama Baldé nangu ba te la olof di wax ku ndugul rey sa maam pour seeni lu ñuul da ngay ba rëq loolu mooy waxee Abdou Bakhoum ne ko loolu mooy lan mu ne loolu mooy dafa am ay promoteur yoo xam ne dañ fa mas a jaar ak ñoom ñu yoroon leen xaalis te ba tey jii fay ñu leen ko nee nag loola lañuy bañ mu dalaat leen moo tax daal fi mu nekk ni moom luñ leen di wax lu ne bu dee lu ñu bind ci kayit lay doon muy contrat day leer nañ dara bañ caa manqué nee nag ay manquement yu am moo tax ba combat ba fa mu nekk fa mu mujj daal mooy signé wuñ ko ñu ne ko wax seen diggante Tapha Tine kon léegi dootu ngeen ko jël mu ne ñoom daal waxuñu loolu waaye li leer ba leer daal ñoom ñu ngi toog di xaar ku mel ni Gris Bordeaux Bombardier wala ki nga xam ne moo di Modou Lo ndax ci ne ñu ngi leen koy mooy wax ki nga xam ne moo di Abdou Bakhoum te point net ka nga xam ne nag moom lañ doon wax digganteem ak Ama ba muy Tapha Tine yëglikaay bi di sunu làmb ñëw na ci moom nee moom mii de boo bëggee dégg-dégg fi mu nekk nii ci guddi gu ba setagul ci la Tapha Tine daal di nekk lëndëm crise daal la dugg ndax nag boo bëggee dégg-dégg Ama bañ na bu bëree ak moom Gris Bordeaux lànk kandaare Lac de Guiers noonu Modou Lo noonu Boy Niang noonu kon Tapha Tine yëglikaay bi ne moom léegi nag fan la jëm ndax nag ñi nga xam ne nii day ñoom la ñu fi wax ñëpp ku ci ne waroon a séq ak moom combat daal wala ñu dox sa diggante ak moom wax wax wala nga lay ba génn ca moo tax sunu làmb xam ne tafaa daal boo bëggee dégg-dégg moom fi mu dugg lëndëm na kiris lool lool lool yëglikaay bi di sunu ñu wax mel ni ki noonu ñi nga xam ne ni moom seen i combat bëriwut waaye ndam bëri na lool mooy waa yoof mbooloo yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw ci ñoom nee na écrit nag six combat la ñu def cinq victoire ak benn défaite yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko nee donte ndam yi combat yi bëriwut day waaye ñu ngay dox di dem de ñu ngay yëngal ndànk ak ndànk wan ñu ki nga xam ne moo di caatu yoof bi nga xam ne ci écrit ba ne waaye nag am na fa xale yoo xam ne moom wane nañ seen bopp bu baax a baax a baax ci écrit ba nga xam ne nii day moo di yof mbooloo sunu làmb xëy ñëw wax nu ko jàppal kii nga xam ne nii day moom moo di écurie Yoff ay promoteur yi leen tëgg yëglikaay bi na ka ca jëkk moo di jéy seen moo du Niang Fallou Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Sambay ñeenti promoteur yooyu ñoo sédd écurie ba nga xam ne nii day moo di Yoff mboola waaye caatu Yoff moom ah mu ngay gën a wane daal boppam ca combat ya nga xam ne mu ngi koy am di ko daan waaye ki nga xam ne nii moom moom mooy capitaine dina moom maanaam daal dafa absente saison bi bëriwu ko moo tax nag ay mbiram itam ah lu naqaree laaj war a bokk lu jaral laaj la waaye am na fa espoir yoo xam ne tamit ñu ngi ci gri di wane seen bopp ku mel ni caatu ndar moom espoir la boo xam ne day mu ngi ci gri booba di wane boppam Babacar Diagne mi nga xam ne nag moo leen di entraîné moom it ñëw na di wax ci performance bi nga xam ne écrit ba def na ko donte itam taxut combat ya bëri na mu war a bëree waaye keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bii di sunu làmb ñëw na ci moom di wax ne moom day mbaa bu bàyyi bi wala boog bu bàyyi fa avec frappe bi mbaa du ko wiital muy Reug Reug ndax new ci tànki bàyyi ko boog li leer ba leer daal jàppal bu fekkente ne da koo nar a bàyyi itam daal am na ñoo xam ne est-ce que duñ jël place am mu mel ni ki Franc général Malika Serigne Ndiaye numéro 2 ak ñeneen ñoo xam ne daal mën nañoo nekkoon relève bi nga xam ne nii day ñoom ñoo koy relever keneen koo xam ne nii moom la muy relever wala la mu bëgg mu nga ca di ko taxawal muy yu jar a bàyyi xel Ousmane Ngom numéro 2 ak Ablaye Diop mu mel ni ki nag combat ba Jax moom fisala na ko waaye leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom mu ngay wax te njëriñ la ko équipe nationale andil wala la mu ko jural muy Safi Dieng ba dëkk fa nga xam ne mooy ca Thiès nekk école de lutte fa nga xam ne nii day mooy Omar di ko ca Thiès moom daal la ko équipe nationale defal ci ay njariñ moom la xëy ñëw di ko wax ñii moom seen coow la ba tey mu nga fa waaye nag daa mel ni fi mu nekk nii day ñu ngi ca bëgg a am solution muy ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di waa CRC ba ca mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom ay jubbanti wala ay waxtaan wala boo ut ay yoon yoo xam ne ca la ñuy jaar ngir jàll ñu koy wër kii moom ka wër daa mel ni gis na ko ba jël ak buumam gàcc ko koy yeew ko ba mu dëgër wala mu nar ko koo yeew mooy ki nga xam ne mooy Garga 2 bu dóor dóoraat Leewtoo xamal ne day Garga 2 nag day takk jabar di ko ciital takk ciital lay def dimanche ji ñu jëm nday roq ya njaay la ndaw sa tudd di rakkee armaa njaay ma nga xam ne mooy fecc ca Ramadaan di groupe Wally Seck ba Leewtoo point net noonu ko yëgal yàgg maar li may laaj kii takk na jabar garga doo day takk yàgg maar yàgg defal effort yàgg Mansour yéen a ngi ree rek célibataire gu yàgg wóorul de billaay wóorul waaye gars yi ñëwaat naa de ñëwaat naa di leen wax rek ngeen ñaanal ma ndax nag soxla naa ko bu baax a baax a baax waaye sant naa ñëpp yàgg maar gërëm naa ñëpp ñaanal naa ñëpp jàmm gis naa nit ñi fi ñu toll ci Babacar